fii mbonn bi ba mu amee fii ba tey àllarba si guddi la am ba di seet alxamis amul ñu fi ñëwul ku ñëwee dañuy bindi dem seen yoon kenn faale wuñ Lamine Lamine mii ñëw fii nii ñu ngi koy ñaanal gudd fan ñu ngi koy ñaanal weer li muy bugg yal na ko yàlla defal li muy yoot yal na ko jot ñun ñi fi nekk yëpp moom moo ñu saf ñu saf ko rek ndax moom moo ñu saf ñu saf ko rek moo ñëw fii di ñu dimbal waaw danoo woowoon ku tekki dara ci réew mi ba nu lii dalee danoo jàqoon danoo commencé ca ca kaw ba ca suuf ku fi tekk rek tudd nañ saw tur woola ne la ñool dimbale nu ñool waaye bi nu wootee ñëpp wooteek njaqare cri de cœur a nekk en arme nekk alarme koñ bépp bekku suukar nag kii moo ko njëkk a andil la mu waxoon ne on va waar waar nañu waaw dégg na nak mu ngi tuddu Thierno Alassane Sall yónnee na fi li ngeen digi sama ginau, mu di éponse dees na ko séddale ñi nga xamné ñom lañ bindon seeni tour tur loolu daal lan gisagul. dugg ci kër yépp ci la woté daal né koy na nga jox sa tur ma dimbali ci ay mat la pour di ngeen lal bu sa doobi yi lal ko ndax dem nañ ba xalé yi amatuñ fu ay la di tëdd ndax ndox mi dafa yobul lépp ñuy sant yalla di ko sant rek dëgg yalla kenn ñëwagul wax dëgg mom daal la gisagul mu ñëw mu kër gu nekk dugg na fa seet la nga yàqule bind ko ne dinaa fi ñëw dimbali ay matelas yu ngeen lal waaw daal la ñu gisagum dëgg yàlla ñu koy sant bu ba limu def moom rëy na lool wax dëgg nit am jafé jafé nga ñoo mastawu ko rek lu rëy la def wax deug yalla ndax mbir mi mom def no bett ñun ñëpp waye ak cant la ndax am na ñoo xam ne nettaliwuñ ko mu ñu jotee suñu bakkan sant nañu yalla yaq yaq yoom dara ndax la yaq ñoo ko mën a wuti waaye mënuñoo wut ñi ngi sant yalla yoonu serigne touba bu baax dañ japp ne nit boo dimbali dañ koy dimbali ci limu soxla lolo taxone taxoon ñu ñëw gis nañu arène bi biko état bi défaré def ci lim ci def yépp faté na population yi seen fi taa na ñu ñàkk seeni matériel ak ndoxu foos yi si dugg donc ñu nit li ñu jàpp ne mooy ñu jàppale leen ci li nga xam ne moom lañ soxla mooy seen matériel yi nga yàqule yi ñu yàqule ñun nag ñu def ko si sonono mooy tey indil leen ay matelas indil leen moto pompe indil nañ leen sax ay quelques yére yoo xam ne moom la ñuy sol parce seen yére yàqu na loolu moo doon sunu sunu sunu sunu déplacement di ñaanale vraiment encore état du Sénégal na dellu xool askan bi parce que yi ñu dépensé fii yëpp askan bee war a nekk mais mënoo dépensé alal bu nekk ay 32 milliards alors que 100 mètres nit ñaa fi bu tawee seen seen seen alal yëpp yàqu seen bien yi yàqu ay ndóol ay boobu. donc looloo doon sunu visite ñun nag dañuy wax li ñu yéene askan bi suñu poste antanu ko ay opposant lañ membre république des valeurs ñoo def seen i cotisation jënd ay matelas indil leen ko donc di ñaan yàlla bu ñu yàlla dénk réew mi xëy na yu mel ni dootu fi amati